mu ne ko mënumaa dem ñu ne ko lan moo tax mënoo dem mu ne ko mënumaa dem parce que gëwuma la ñuy def te lu ma gëmul ni la ñuy def baax na du ma ko siiwal mu ne ko non du da liggéey ci man maa la sant mu ne ko waaw damay liggéey ci yow waaye nag du def lu yàlla tere mu ne ko lan la yàlla tere mu ne ñii dama gëm ni li ñuy def yàlla da koo xaraamal dama gëm ni li ñuy wax du dëgg ndax sama diine du ko wax alquran saxal ko kon duma dem di leen tendre micro du ma ko def ñu dàq ko <laughs> bi ko patron dàqee weer ñaari weer jékki ba jàgg woolu ko mu ñëw mu ñëwee mu ne ko dëgg-dëgg seetlu naa li nga wax mais dëgg la yow ku dëggu ma am na ñeneen ñoo xamante ne pourtant bu ñu leen yónnee dañuy dem mu ne ko waaw ñoom la concerné. dafa am lu ma bëggoon leeral tuuti loo xam ne dafa concerné kër gi ma nekk. parce que suñu borom tabaaraka wa taala daf ñuy wax ne wa in jaakum fasiqun bi nabayin fa tabayyanu bu fekkee ab kàccoor daf leen andil ay xabaar yu lënt gëstu leen ko li ma bëgg a leeral mooy boo duggee ci réseau sociaux yi da fa fekk palaasu tafsir boo xam ne oustaz Omar Sall moo ko def ba muy def tafsiru alquran boobee di ci wan ne moom du dem ci niti bidaa yi ci nam ko tuddee moom moo xam ni teg bidaa man xaw ma ko daf ci adressé ne fii ci groupe bii ñuy liggéey muy Excaf dafa amoon oustaz bu fi nekkoon ñi daa ko tuddee Alioune Gueye yàlla na ko yàlla yóbbu benn bas fa ko yebaloon reportage ci niti bidaa yi mu bañ mu dàq ko wax jooj laa wax ne du dëgg demeewul noona parce que wolof na na maa fekke bakkan lay laaj wax ja man mii di wax ak yéen fekkee naa ko wax ja juróomi nit la concerné ñett ñaa ngi ci àllaaxira ñaar a nekk ci àddina Oustaz Alioune Gueye yàlla na ko yàlla yërëm Ibrahima Diagne benn baas yàlla na ko yàlla yërëm Sëriñ Koso Mbàkke astuloo yàlla na ko yàlla yërëm ñett ñii la wax ji concerné Sëriñ Koso Mbàkke astuloo dafa doonoon xaritu benn baas Diagne di organiser ay ndogu Sarsara bi muy organiser ndogu yi saara mu tombeek yawmul xamees benn baas wax ko na ko rajo Dunia dana la koy jëlal en direct booba rajo Dunia moo fi nekk ci jamono yi ak Zid FM dikk wax ko Alioune Gueye nag comme yow la tombé yaay def émission Alioune Gueye moo daa fanaan bis boobu di def émission bu ñu tuddee Nooruun ala Darb muy commencé minuit ba 5h30 ak invité benn baas wax ko na ko comme yaa fi nekk nag bu minuit trent jotee jëm une bu ñu la wooyee balancé leen antenne bi dem sa yoon mu d'accord wax ja kon benn baas musta yebal Alioune Gueye reportage ndax Alioune Gueye daawu defi reportage reportage Abdoulaye Lam moo ko doon def ak ñoom Addi Wade ñu fa nekkoon loola moo xew-xew bi bi yàlla dogalee heure bi jot ñoom ñu woo oustaz Alioune dugalu leen ñu siisir benn baas këram mu taal otoom ñëw këram ci ancien bâtiment ba dugal émission bi gars yi continuer def seen ndogu yi sarsara bañ yaa ba ñu yàlla mayee panaanam jàmm ci lan demee ga Alioune Gueye na bàyyi na histoire bi nii la demee bi Alioune Gueye bàyyee nag benn nit ci ustaas yi wala ci mouvement islam kenn kese moo ci dox doxab jéego war ca waroon cee mën a wax muy ustaas Ibrahima Kane ku ko mooy doxoo ca waxoo ca waaw ku ci doxu doxoo ci nag ko xam ne gédd na àddina bu yàgg ñaanal ko yàlla moo war nan nga mën a jëlee ay mbir di ko teg ci kawam tey ne moo wax nangam taxu ko alaaji ustaas alaaji Ibrahima Kane moo ma fekk fële ci bat ancien bâtiment ba ci école na ma dama bëggoon ku négocier oustaz Alioune Gueye pour mu dellu siyaat def émission ndax émission bi am na solo pour jaam yàlla yi ma ne ko négociation ne danaa koy defal nit waaye dafa fekk borom bëgg ko mu ne ma xaaral ma dem wax ak moom jógee ko fi dem wax ak moom dellu siyaat na ma d'accord na oustaz Ibrahima kan mi ngi may dégg moo ma wax lii na ma wax naa ko na ko boo seetee temps de antenne bi nga yore li nga ci mën a defar ci ay doomu aadama boo doon def ay conférence mënoo ko def bañ d'accord ma dem négocier ak benn baas mu si ko joxaat ko émission bi mu doon def alxames mu des bi ñuy war a fanaan mu joxaat ko émission bi kon mu des tafsiru alquran bi fekk diggante bi Alioune Guèye bi mu fi jógee Alioune Sall ñëw na fi mu continuer ci loolu ba Alioune Sall dem si FM mu continuer tafsiram wax ji nii la delee la ko dalee ci lu sori ak lu jege nii la wax ji tëddee leneen amu ci nag li Oustaz Omar Sall wax ne dañ ko yebaloon reportage ci nit bi daay yi mu bañ ba mu dikkee benn baas ne ko xaw ma mu ko man duma dem loolu yëpp dara amu ci. parce que même bi Alioune Guèye jël seet fii sax benn bas toogutu Alioune Guèye man maa toog Ibrahima Kane mu wax ma ma dem toog ak benn bas mu ne na del seet ma wax Ibrahima Kane mu del si nii la demee waaw léegi nag ku toog tin kaamil alquran di tafsir alquran ñi may wax lu ñu mel loo xam ne fikki woo ca dara la min qaribin wala min baid te fàtte na ne ñi muy waxal borom rajo bi ak ñu fi doon liggéey ñi ngi dund kenn déyeegu bàyyi ndaw mii fi la ko fekk man mii fi la ma fekk keneen fi la ko fekk laa ngi dund yaa xayta naa